leen nuyu di leen jaar yéen ñi suivre Sport ñu war a ñëween ci benn vidéo wax ci président CAF bi nga xam ne sanctionné na ki nga xam ne mooy arbitre ba Sénégal yu bëree bëri d'accord ci jàpp ne loolu day ñoom sax yoon nekku ci ndax nekkul leen di bégloo ni mu yàq seen match ñoom ba léegi mënuñu ko baal arbitre bi daan ñëw ci loolu gën ci def def ak décision président CAF bi mu jël mais laata loolu dañu wax yéen ñi gën ci bile page yi ngeen abonné te ngeen bës li nga xam ne mooy cloche de notification bi pour ngeen am suñ ay vidéo à temps fii ci Rama Sport loolu ngeen ñu mën a dooleel ba ñu atteindre li nga xam ne mooy suñu objectif sama gars yi ginnaaw bi nga xamee ne président CAF bi jël na ay décision suspendre arbitre bi li tolloog ci trois cent sénégalais yi de ñoom bégguñu ca dañoo jàpp ne loolu day nekkul loo xamante ne bii na mooy leen doy li ñu jàpp ba jàpp ko mooy arbitre bi war nañoo teg ci moom yeneen daan yu gën a diis yooyu président CAF nag bu loolu lépp jàllee jël na décision ba de bépp arbitre bu bokkoon ci mag Sénégal ak ñi nga xam ne ñooy Côte d'Ivoire añ nañ la trois cent maa ñu ne ci VAR bi ak arbitre ci central bi ñoom ñëpp daal ku nekk a nañ la trois cent yoo xam ne doo bokk ni ci benn organisation ci wàllum arbitrage kon dal loolu de bu dee am na même bu néexu Sénégal yi jàpp naa dana xalaat dana xaw a régler lu tane ci arbitrage Afrique te ñi ngir toog di xoolaat ba ci kañ la ñu gisaat lu niroog loolu ndax ñu dañ fay nekk pour jéem a taaral li nga xam ne mooy footballu africain ngeen abonné